Birama Ndiaye. la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec le rappel à du professeur Abdoulaye Bara Diop. Il fut directeur de l'Institut fondamental d'Afrique Noire, l'IFAN, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc le défunt était aussi un ancien président de la commission scientifique des Assises nationales et de la CNRI, Commission nationale des réformes des institutions. La levée du corps est prévue euh, aujourd'hui euh, à 11 du Point E, suivie de son enterrement au cimetière euh, musulman de Yoff. Et puis, à la date d'hier, 466 cas sont déclarés positifs à la COVID-19 à Kaolack, dont 46 décès. Le médecin-chef district sanitaire demande plus de vigilance dans les écoles Nous écoutons à ce propos Dr Nian sec au micro de Mamadou Camara. C'est vrai qu'on travaille avec euh, l'éducation parce que c'est un partenaire stratégique euh, du ministère de la Santé pour des activités de routine en dehors de la Covid. Et donc on sait qu'au niveau des établissements scolaires, il y a les élèves, il y a le corps enseignant, il y a le corps administratif. Et donc un protocole sanitaire est déjà mis en place. Et nous voyons que ce protocole sanitaire euh, est mis en œuvre par le secteur de l'éducation et nous, nous les accompagnons. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette cérémonie euh, a relevé toute sa, toute sa valeur. Et donc nous venons les accompagner pour qu'ils puissent euh, mettre, mieux mettre en œuvre le, le protocole sanitaire. Euh, et ça aussi, c'est pas seulement l'apanage du secteur de l'éducation, mais les parents aussi ont une responsabilité par rapport à cela. Parce que ce sont les parents qui, qui envoient leurs élèves, leurs enfants à l'école. Ils ont aussi le devoir et l'obligation de faire en sorte que chaque élève qui part de chez lui puisse porter le masque. Donc ce qu'on va à l'école, c'est un appoint pour que les élèves qui n'auront pas de masque qu'ils puissent les, les, les donner. Mais donc la lutte contre cette épidémie, ce n'est pas la lutte d'un secteur de la santé seulement, de l'éducation seulement. C'est un mouvement d'ensemble qui va nous permettre euh, de, de mieux, euh, d'arriver à bout de cette, de cette épidémie. En l'instant, le médecin-chef district sanitaire de la région de Kaulak. Et puis à Sédhiou, les populations des Pakao n'en peuvent plus de vivre dans la précarité ambiante entre manque d'eau. Euh, de courant électrique, d'activités génératrices de revenus et pistes de désenclavement routier. L'inquiétude a fini de s'installer dans bon nombre de foyers de ce terroir de l'est de Sédhiou. Excédées par ce mal-vivre, ces populations ont initié un conclave en Marande, à Marandane, autant pour moi, pour prendre leur sort en main. Moussa Dramé. Une journée de conclave pour dégager des pistes de solutions vers le développement du Pacao, un vaste terroir de l'est de Sédiou. À Marangdang, où a lieu l'activité ce dimanche, les travaux ont démarré par la pose de la première pierre d'une école coranique dont la vocation est de promouvoir l'enseignement islamique, mais aussi, selon eux, de barrer la route aux dépravations des mœurs du genre homosexualité. Bekay Djebaté, le président de l'Association pour le développement du Pacao. Dine Islam, avec l'Association sénégalaise pour le développement du PACAO, la construction d'une école de 6 classes, environ 30 millions, aménagée par euh, à l'intérieur du PACAO, mais également au niveau de la diaspora. On ne peut pas attendre tout de l'État. On souhaite aussi à ce que l'État nous accompagne. PACAO, il n'y a pas de lycée. Nos grands-pères, c'est des érudits. Le ou n'arriveront jamais au plus grand jamais à PACAO. À cette même occasion, les populations ont exprimé le souhait du désenclavement et de l'électrification Nyeri jusqu'à Sarayoba. Et là, nous avons une route. Et de l'autre côté, il a y a des sites religieux. Je prends l'exemple seulement de Karantaba. Le président, avec son gouvernement, doit un peu penser à Pakao. Nous électrifier. La salinisation de leurs terres en zone de bas compromet également l'autosuffisance alimentaire, ont-ils fait observer. Nos vallées ont été envahies par les sels. C'est l'État pour nous désaliniser cette vallée-là. Enfin, une conférence génératrice de revenus pour combattre la pauvreté dans la zone. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mbooleem suñu bànqaas suñu lëkkaloo yooyu xibaar ñu door ak ci génn àdduna professeur Abdoulaye Bara Diop nekkoon fi directeur de l'institut fondamental d'Afrique noire di IFAN foofe ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru niki démb la daal di wàcc liggéey moom nag nekkoon na fi itam président commission scientifique bu assis national nekkoon itam commission nationale des réformes des institutions niki ci kanam tuuti la ñu fas yéene amal li leen di euh, cérémonie de levée de son corps bu. yoor yoor jote ca mm, jàkka bu nekk ca point E buñ ca noppee ñu daal di ko jébal boromam ca janasa jullit yu nekk ca Yoff niki bésu démb ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nit ñoo amee bees lilé ñoo amee corona bi foofee ca Kaolack euh, ñeent fukki ak juróom-benn nag jot cee ñàkk seen bakkan médecin chef bu district sanitaire bu nekk ca Kaolack nag moo ngi sàkku ñu gën a taxaw fa bu ngir rek daal di xeex lii rawatina ci école yi docteur Niane sekk ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. bàyyi xel aussi suñu kilifa yi mag yi parce que ñooñu la euh, feebar bi di gën di sonal parce tey jii société bi nu mu bindoo borom kër yi ñoom ñooy ñoom ñooy société bi ñoom ñooy les socles donc ñooñu dañ leen war a fexe protéger leen bu baax. Euh, donc tey moo tax euh, lii euh, la famille de feu Amadou Mokhtar gay def joxe ay masques jox ko secteur de l'éducation loolu dañ koy rafet lu lool. au niveau de l'éducation aussi protocole sanitaire bi ñoom ñu ngi def seen lay kattan pour respecter ko mais dañoo soxla ñu leen gunge ñu leen gunge ñii bokk nañ ci mais aussi parents yi nga xam ne ñoom ñoo jël seen doom yóbbu leen inscrire leen école dañoo war a fexe kenn ku ne sa doom balaa muy xëy nga jox ko masque mu yóbbaale ko léegi lii nga xam ne indi nañ ko. Euh, pour jox ko éducation ak ñoom li leen seen ministère de tutelle jox dafay permettre rek pour combler le gap xale bu amul mas ñu jox ko parce que ñi nekk ci élèves ci école yi dañoo bëri di leen jox mas tous les jours loolu attan ko euh, jafe na lool donc euh, waaye ñoom ñu ngi def seen këmte laay kattan ñun ñu ngi leen di gunge pour ñu faire respecter le, le, le protocole sanitaire mais aussi parent yi surtout et les familles quel sa kenn ku ne na jàpp na yëf yi xeex bi sa xeex du xeexu état kese la le combat est d'abord individuel avant d'être collective ou nationale donc kenn ku ne na sàmm boppam sàmm ay waajuram sàmm ay kilifam sàmm ay doomam yi nga xam ne parce que ëllëg suñu doom yi ñoom ñoo ñu wutu donc war nañu fexe ba ñoom ñu ñu ñu ñu mën a protéger wu te xale bu ñu protéger wu dañuy protéger mag indirectement donc loolu lu am solo ñu dem ba ca Sédhiou foofee jafe-jafe courant jafe-jafe ndox ak ruqe gisee na béréb bu daal di ruqe loole moo tax rek askan wa fa tabu fa ngir rek mën na génne ci seen bopp ci jafe-jafe yooyu Moussa Dramé. lël bii la ñuy amal ci Marondong féetewoo ci Pakao ci dibéer bi luñ ci jublu moo na rek fexe ba am weccante xalaat lépp loo xam ne si waroon a soxali gox boobule moo am ciit ndorte boo xam ne amal nañ ko it xeer mu njëkk boo xam ne teg nañ ko it l'école coranique di daara joo xam ne juróom benn classe la te it ñu war ci soxali njàngum islam waaye tamit ne ñu it gàntal lépp loo xam ne si dafa aju ci xeetu homosexualité di góor ak góor jigéen yi sëy nekk loo xam ne ñoom ñu ngi koy gàntal ci seen gox bi dañ ci teewlu Senghor Diba nekk nekk njiitum association daayiratul diine islam. fas yéene nañu tabax six classes si Maranda. cotisation la. bi ñu ko sampee ak léegi motul on an. jigéen ñi ñoo si bëri. askan bi jàppale seen doom yi nga xamante ni ñoo nekk si gox bi. taxawal eh, taxawal ay daara. ni ñi jàng si. 30 millions dina dugg fii. pour jàppale état. en tout cas lii mënuñu xaar état. état lépp lu mu si mën a def. mu def ko. pakaaw affaire saay-saay yooyu. munul nekk fii diine. dina bu tumuraanke rek leneen dugg si loo xamante ni yàlla bugg ko yenent bi bugg ko. ci jotaay joojee ba tey sopp nañ loolu nguur Sénégal gën leen taxaw ci lu jëm ci wàllu dem ak dëkk bi ay yoon maanaam waaye tamit mbirum courant bi di électricité dañ ci teewlu ba tey Senghor Diba njiitumu association daayratul diine islam. président Macky Sall. Eh, Pakaaw war na gëstoo bu baax a baax a bi ñu nekk. dëkk bi lëndëm na. suñu doom yi pour ñu jàng loson. sondal ngay taal. nañu jëppale dañu ko ñaan jullit ak jullit. tali bi nga xamante ni moo jóge bañeer bañeer sandinière sandinière sara yu baa jega gisuñu dara kaw ci jotaay ji fësal nañ ci jafe-jafe boo xam ne moom la ñuy teel ci wàllu mbay mi ndax ne ñuy te xorom dafa dugg lool ci seen i tool yi nag loo xam ne dafay nagamal seen i liggéey nekk noonu it ci beneen jotaay joo xam ne it amal nañ ko ci njiitum agence régionale de développement fii ci diwaanu Sédhiou fësal nañ ci it mboolem taxawaay boo xam ne war nañ ko gën a may gëdd ngir it jigéen yi mën am xëy xeex ndóol moo xam ne mu ngi ci frankulaay lool ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé Sud Birama Ndiaye mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieng mi féetoon ci xarala gi ci kanam tuuti bu juróom benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili rédaction bi dina fi ñëwaat yaatal ko ci français ak ci wolof laata loolu ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak seen programme mu seen rajo ñu leen di ñaanal panaanu